jaa ngeen jëf ci déglu bi ak seen taatin bi am nañu mbégte ak neex dellu si waat ak yéen nañ ko baaxoon dafa génn àjjuma bu jot ci waxtu wii jàkkaarloog yéen seen émission bi nga xam nag moo di l'oeil du tigre waaye nag jàppal ni émission bi duma ma wéet benn yoon ndax nag sa su ne damay feggoo ak moom kooku di Moustapha Guèye Moustapha le tigre de tous les temps Moustapha sama consultant escalité ma lay nuyu di la ziar di la bàyyi xel bu baax a baax Mati maa ngi lay fay da delloo nuyoo di nuyu mbokk téléspectateurs yi di leen talal sama loxo naa leen asalaamu aleykum asalaamaaleykum ñi seetaan biir réew ak bitim réew ñu jàkkaarloog ñun toog ci seen biir kër di ñu seetaan asalaamaaleykum ñi nga xam ne nag làmb rek moo leen soxal asalaamaaleykum ñi nga xam ne nag Télé Futurs Médias rek la ñuy seetaan waaye nag di sargal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndal ànd ak yéen ci nga xam ne moo di sunu sommaire tey sunu sommaire nag nañ ci am li nga ne moo di jël bi ci diggante Abdou Diop ak kooku di Zem nañ am li nga xam ne moom moo di euh, affiche ci ki nga xam ne moo di Lassana ak ko di Babacar Diallo nañ amit li nga xam ne moom moo di Leewtoo ku ne xam bi ñu nekk ni dañu nekk semaine boo xam ni dañ ci xel baax a baax ñi nga xam ne nag duñu dégg wala nag ñi nga xam ñoo di handicapé yi ànd ak yéen tey ci sommaire bi ànd ak yéen ci ancien gloire yi tey ñu ngi waxtaanee ki nga xam ni moo di euh, baayu Balla Gaye baayu ki xam ne moom moo di euh, Sa Thiès di nag mbër mu mag di Double Less waaye nag nañ jàll ak yéen ci xam ne moo di allo docteur xool li nga xam ne moom la docteur yi indil ñi nga xam ne ñoo di mbër jàll ci li nga xam ne moo di sunu zapping waaye nag tey jii ne woon naa leen ajjuma bële passé foo déggee doyen xam nga ne di nga dégg per bu xar kon nag tey ji moom mooy ki ñi nga xam ne moo ñuy mayee ànd ak yéen ci statistique ak ki nga xam ne moo di doomu géejawaay di Elton ànd ak ci li nga xam ne moo di revue de presse ñu dem régie dellu si waat ak yéen ci sunu plateau. kon nag ñu nuyoo leen li nga xam ne moo di jëlle bi jëlle bi tey dañ ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di Abdou Diop ak kooku di ñu ànd ak waa Régie seetaan ko. jaay door nañ Zëm Abdou Diop numéro 2 door na Zëm jël jël Zëm na ko mbër du xees de añ nañu Zëm. <laughs> mane ne ña ngi koy añ bañ na takk na ko takk na ko bañ na teel teel boo takkee da ngay tey teel baax na daax na zëm caxabal ba daan nañ ko laay laay la laa zëm daan na Abdou Diom numéro 2 mbokku téléspectateurs yi combat bu riche ci wàllu bëre tuuti ci wàllu xeex mais combat bu doy walla ci li ci niñ ko bëgg waxtaan ak yéen ki nga xamante ne moo féete seen wàllu càmmuñ nag giital tànk càmmuñam ba tey moom mooy Abdou Diop xàcc nag crochet du droit di ko dóor si kii nga xamante ne nag moo féete seen ndajor tudd zëm ngemboo ngembulu xonq li takk sengoor gu weex gi ci ndigg li après takk téere baat bi téere bopp bi di moins nga gis na kon fii Abdou mu ngi déclenché crochet droit bu baax du leen fàtte mukk ne ñaari tànk yi jiit le nii ki jiital tànku ndejoor ki jiital tànku càmmoñ di Abdou Diop ki jiital tànku ndejoor nekk zam li nga xamante ne moom la Abdou Diop def nii moom la wax def mooy dafa yëkkati un crochet de droit pour ñëw dóor si ko à bout portant ki nga xamante ne mooy zam let's go ñu dem coup bi nag bi biñ ko sànnee kii di zëm dafa sëgg anticiper def roo def indi def li nga xam ne mooy roofoo actuellement ñaari mbëri jàppoo nañu ngeen gis na zam mi ngi tegoon tànku ndajooram léegi nag nga gis na kon nga gis na kon euh, bi nga ki nga xamante ne mooy zam bi mu demee def accrochage jàppante ji gis crochet droit bi di ñëw mu jugal ak moom dafay ni jàppante dugal rapidement le plus rapidement possible la dugal loxo yi ci gaño bi ñaari loxo yëpp nag leebal ci gaño gi nga gis na kon fii kii di Abdou loxo baa ngi ci biti ce qui pas bon pour lui moom nag mi ngi taxaw ci benn tànk bi di yoon ci attaque ba léegi la la desoon donc ñoom ñaari jàppante nañ jàppante boo xamante ne jàppante début la commencement jàppante lañ nekk nii ba tey ñu dem Bamos. zam dugal na ñaar loxo yëpp ci gaño gi nag léegi nag fii ab du dafa jóge foofu nag bi ko waa ji jàppee sëqee ñaari goño gi daal koy dëbb ñaar loxo moom la ñuy wax dëbb ñaax ñaari loxo yëpp la ko dëbb ci pokotaan gi c'est c'est très difficile pour moom nii actuellement mu ngi supporter poids wu lépp képp koo xamante ne mooy zam écarté ñaar tànk yi gis nga di def effort yu mag pour soulever son adversaire Babos ñu dem ba tey loxo yi dajeegul ci kaw mi ngi préparé action yi gis nga lii nañuy yox bëri tampalon fii bëri daf ci am solo trop ñoom ñaari ñu ngi bëree ci kaw te suuf ba léegi bokkagul ñaari tànk yi liggéey guñ dara ki gis nga fi mu sëq gajo gi nii fi mu nekk nii dafay nuru ku jekka di te moo jekk lan moo tax mu jekk mooy dafa am soutien fa sëq ñaari gajo gi waa ji bal ko ci kaw boo xoolee fii kii at kii di Abdou aussi ba léegi loxo yi dajeegul ci kaw dafa war a daje saa bu dajee nag ci la combat bi gën a am étincelle zam jël bopp bi teg ko fii sikkim bi teg ko ci dënn bi di déglu zab dafa déglu dafa attentif daf ko déglu rek may ko xool ko di ko xam lu muy def parce que loolu fi sa ba mos ñu dem ba tey nga gis na fi Abdou aussi daf ko jéem a def croc en jambe di ko caxabal waa ji jéggi tuur ko nag oh là là là là ça c'est très ni nga xamante ne la ko la ko Zam Touré dafa extraordinaire mais ba léegi nga gis ne kon ki nga xamante ne mooy Zam mooy Abdou loxo yi dajeegul ba léegi mi ngi jéem loxo yi dajee mais est ce que ni muy daje dajee loxo yi baax na dañ ne ne loxo boo ko dajalee da nga koy dajale ci nuyu sa bopp xëcc mais tant que yaa ngi rof ko say loxo rek c' est très dangereux doo am aussi prise bi nga soxla sa loxo yi du am mouvement te mun nga ci am ay problème mu ay luxation de doigt mbaa fracture de doigt kenn du roofee nii mbër boo ko ceinturé interdit nañ leen ko soit da ngay nuyu sa bopp xëcc wala nga croisé say loxo ci biir xëcc nii c'est interdit ñu dem nga xool ne kon fii zam ba tey gis nga nag kon gis nga waaye li ñu foogoon ne moom lay def dafa ko dafa nuyu loxoom saisie bi baax na ko trop roofkewul loxo yi daf ko dafa nuyu boppam xëcc ceinture nga gis na kon ba tey euh, zam loxo bi mu ngi lâché bi woon ci ngemb li lâché na waaye bee ma nga téye xool fi fi waa ji xool ki nga xamante ne mooy Abdou mi ngi xool fi mu koy yóbbu ji ji ko jéem a tegal li nga xamante ne moom la ñaan Cheikh di tànk bi pour yóbbu ko waaye tànk bi lan moo koy dindi nañu ko waa ji ñu dem mu cëppeelu mu yëkkati ko waddalaat ko ba léegi ñu tampaloo bàyyanteeguñu li mooy tampaloo boo xamante ne du jeex ba jël di mati nga gis ne kon ba tey kii di zam mu ngi téye gaño bàyyiwu ko te bu téye gaño gi moo tax ba léegi kii di Abdou réussiragul li nga xamante ne moom mooy prise am vamos vamos mu dellusi ko benn samp xool zam mu ngi ci kaw ngelaw lu di bëre sëq na gaño fii sëq gaño fii waaye xool tànkam bi nga xamante ne bu ko waaj kalee dafay daan nu ko ni mu ko sànnee sa gannaaw maanaam sama tànk bi su ne fii moom zam tànkam bu tegoo fii bu ko waaj crocheté da koy daan mu jël tànk ba nag bàyyi xel ci action ba daal jëkk tànk ba fu ne pour bañ a daanu ñu dem ba tey combat bu riche gars yi cëppeelu delloosiwaat ko ba tey jàkkaarloo am mu koy caxabal nag oh là là c'est malheureux caxabal dañoo wax ne boo koy def dangay téye doo ko caxabal seetlu mbër yi nga xamante ne dañoo bal ñaari mbër loxo ceinture bi ñu caxabalee rotation bu ndaw la waa gi def rek kii nga xamante ne mooy zam dafa daf ko bàyyi dans le vide maanaam mu koy caabaxal moom moo téye waa gi téyewul caabaxal da ngay téye benn loxo ci ngemb au moins pour dàq ko caxabal mais boo balee ñaar loxo caxabal waa gi defee rotation rek dangay dem dans le vide moo waral nii caxabal ba génn na parce que fa mu sentir moo tax kii nag fa mu téye mu ngi ko téye ba tey xool effort bi rek daf ko xëcc ba ngemb li xaw a bëgg a daanaka mu def rotation ànd ak moom ñu dem ñu dem ñu dem mu daanu daf ko bàyyi dans le vide mat yi mu daanu. kon nag loolu la ñu Moustapha dekk wax ci kel tey ci diggante combat bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Zem ak ko nga xam ne moom moo di Abdou Diop. Mhm. Zem moo mujjee daan lan naka la Abdou Diop def wala lan la euh, def te waru ko woon def ba daanu. déjà li waral jëllam mu daanu mooy insisté na insisté na ci benn action boo xamante ne jaxatu ko woon parce que mënu ko réussir parce que dafa dëbb ñaari loxo ñu ëmb ko tënk ñaari loxo yi mu dëbboon ba pare sëq ci gaño gi. dafa mel ni dooleem la utiliser. exactement dafa bàyyi ko mu yëkkati di cëppal boo xoolee combat bi boo ko wàññee am na benn ñaar ñett ba ci ñeent yoo xamante ne ab Abdou mooy yëkkati di cëppal waa gi di ko éviter pourquoi mun ko éviter mooy dafa sëq loxo yi ngemb yi ci extérieur bi waa gi nekk à daf ko tënk. maanaam mootul bougé ba pare mu ceinturé nangootul bàyyi si ça va pas da ngay da ngay lâché bàyyi génnaat chercher une autre chose. Mhm. ba pare nag mu insister di ba boole ci nag dernier chute bi lu waral chute bi mooy cabaxal bu mu def cabaxal da ngay téye indil ñu boo ñu indilaatee Yékini Balla Gaye mu Yékini dafa bal ñaan la ko caxabal. téyewul ci gaño ga te par contre ba muy daan Bombardier dafa téye ci gaño gi suuf téye ci kaw caxabal ko donc cabaxal da ngay téye sens opposé bi maanaam dama bëgg a cabal cabaxale sama tànk càmmoñ sama loxo ndajoor laay téye caxabale càmmoñ mu nekk centre ñaari centre yoo xam ne nga téye da koy tënk muy arrière ba daanu donc waaye gi nag aussi ñu gis ne zëm aussi mbër mu souple la souplesse matière dafa baax ci mbër pourquoi souplesse baax ci mbër mooy xool action yi nga xamante ne yëpp Abdou daf ko def zëm da ko éviter ba dernière action bi nga xool ne rotation du rein ndigg dafa war a nooy nooyaay boobu mu nooy nag ci la zam utilisé woo génn ca xawal ba def rotation ànd ak moom boole ko sëq gaño ba mu sëq gaño mun loon bañ def lu na daan gang ne daal jaaxaan daanu jël bu set wecc ba amul benn werante kon nag euh, ñoo ko gisandoo loolu nag la ñu Moustapha décortiqué ci diggante Zeum ak Abdou Diop leneen li ñuy jàll moo di li nga xam ne moom moo di affiche affiche nag tey dañu am ñaar ñoo xam ne moo di Lassana ak kooku di euh, Babacar Diallo. Mm-hmm. ci kan Euh, ci Lassana ak Babacar Diallo la ñu demoon jëli leen mais euh, heureusement pour nous que Lassana ñëw na respecté les rendez-vous dafa ñun entraînement yu neex dafa ñun waxtaan yu neex mais malheureusement aussi que ne Babacar Diallo mujjul ñëw xam euh, xamuñu lu ko téye nag parce que ñu ngi doon communiqué ak moom ñaan mi ngi ci yoon bi départ naag léegi mu agsi pendant trois heures de temps ñëwul donc Lassana la ñu am kon doog mati ñu contenté wu ci Lassana bi ñu am ñu war ñu Lassana mu nag mbir mu doon mu am jàmbaar mbër mu am discipline bu am respect buy neexal làmb nag ndax day bëre ba pare day bàkku day bëri day bàkku nañu dem xool li nga xam ne nag Moustapha Guèye suñu consultant qualité jëlal nañu ko ci ki nga xam ne moom moo di Lassana Mansour salaamaaleykum man la Lassana ñu ngi may woowee la Waraba nekk euh, écrit Ramdan man maa ngi seetaan Lady Tigre tous les vendredis soir la Lassana nekk écurie Ramdan bëree 19 combats 2 défaites 2 matchs nuls 6 défaites am 11 victoires nekk écurie Ramdan sama prochain combat man la ak Babacar Diallo li ma mën a wax ci moom mooy mbër mu xarañ la mbër mu mën a bëri la mbër mu mbër mu gëm boppam la daal mbër bu am fit la mais xam naa ne comme mu ngi tase war muy taseeg lu war a ba yaakaar naa ne dina neex daal xam naa ci moom lu bëri parce que maag moom bari nañ mbapat fekk naa ko koñom ñu bëri mbapat bari bu rëy ma wër ko ndomb mu def ma comme rog ma lax ni mu defoon euh, Pape Cissé noonu la ma def jëli bu jëli bu extraordinaire loolu la ma daan waaye euh, xam naa ne combat bi sama bakkan laa ci teg maa ko gën a nekk ndaw maa ko gën a bëgg li may def combat bi li mu ma jaral xëy na moom jaralu ko parce que am na lu bëri loo xam ne dama ko sóoraal ci combat bi combat bi sama bakkan rek moom mooy des mais Babacar Diallo na nga gëm ne da ngay ñëw rek daanu mais doo am leneen soo xeexee mu ñaaw ci yow soo bëree mu gën a tey ñaaw parce que maa la gën a nekk ndaw maa la dàq bëre li des nañ bàyyi ba la set làmb ji dama ko fonk dama teg sama bakkan ngir yàlla mooy képp koo xam ne da ngay supporter laas na le set nanga nga sañse ba set ñëw stade olympique Ngor te xam ne Lassana moom moo aye incha allah Pikine duñ ko war a yëngalaat Pikine duñ ko war a yëngalaat. gis nañ Lassana foofu ca stade Léopold Sédar Senghor moo ki nga xam ne moo di Moustapha Gueye yow mi nga xam ne yaa teewoon li nga xam ne moo di entraînement yi naka nga gisee wala lan nga ma mën a wax ci Lassana mi voilà sax nag gis naa ko mu nekk en forme doon na ma jaaxal sax trop mu war a nekk en forme parce que début saison la nekk te en général mbër yi début saison milieu saison dañuy nekk en forme mais nag lim ñu won ci entraînement dañ ko bàyyi ak boppam mu def ay éducatif def mouvement yoo xamante ne vraiment bett na ma sax ci moom def na ay mouvement surtout muy daanoo di jaaxaan di jógaat yooyu yooyu foog nga am souplesse ak ay muscles yu pour mun ko mën dem na aussi yéeg ay gradin te gradin bokk na ci façon entraînement yi gën parce que yéeg ba tey yéeg ak wàcc bokkul. wàcc gën a yomb waaw lu toll ak ay cinquante à soixante nga koy yéeg ci ci ci foo xam ne dafa dëgër di koy yéeg daf say yi fa def yëpp daal ku pare moo ko war a def. Mhm. donc euh, encore une fois. mën nañu gis ne gis ñu nag Babacar Diallo dañ koy peut-être encore une fois parce que ñëwul au rendez-vous. xaar ngeen ko gis ñu ko ki ñu gis nag mooy Lansana Lansana wan nañu li loo xamante ne à peu près mën nañu xam ne combat bi ñu nii combat bu métti lay nekk. mais léeg-léeg tamit nga dem jëli mbër ne ko simeekul mu bañ wala defal lii mu bañ euh, loolu parfois nga yaakaar ne du yàqal mbër mi. waaw des fois xam nga euh, xale yi euh, duñu comprendre ne ñoom par exemple c'est important ñu gis seen masse musculaire mais dañ koy teg ci ah nee nañu ma summeeku. <laughs> xarfa la bokk. <laughs> Mhm. mais boo wul tam ci entraînement tamit. Mhm. ca bis laa summeeku ca làmb ah, te mbër mi tamit fu mu toll mi ngi gëstu fan la toll. Mhm. donc ñu ne la summeekul nga jël sa blouson summeeku deset t-shirt mbaa sous-vêtement entraîné parce que loolu tamit fenn di valoriser xamuñu ko. parce que kenn kenn taamuwul. gis benn bët bu sumee ko nekk benn gringale gisoo ci moom muscle gisoo ci moom benn affaire boo xamante ne dafay dégager donc mbir mi ne bu ñu ko nee mi day gën a dalal seen xel gën a sax ragal loo ki nga xamante ne moom nga war a bëreel di nga ko intimider ci sa sa masse musculaire bi ngay génne di nga ko intimider ci veines yi génn ci biceps yi génn c'est hyper important mbir yi di wane seen bopp avant le combat pour intimider seen adversaire ba pare dalal ñi nga xamante ne ñooy foofu lañ ciy taxawandee ci diggante ko xam ne moo di Lassana ak nag Babacar Diallo seen combat soreetul. man la Marley 2 l'espoir de Guédiawaye école de lutte Papa Kane maa ngi bëggee waa Guédiawaye yëpp di leen wax nan xaar seen doom la wit ñu ñaanal ko maam dam incha allah. man la doomu Dangu dëkk Tëngéej précisément à Dangu. kon nag ci fàttali am na combat bu dox ci diggante Marley ak doomu dàngu ci dimanche bi nga xam ne moo di ñëw Tapha Gueye nag demoon na xool nañu ñoom ñaax ñëpp kenn ku ci nekk say entraînement ñoom ñaar nag dafa mel ni que ni dafa dañoo xaw a bokk entraînement ndax nag lu tax loolu moo di salle de musculation ñoom ñaar ñëpp moom la ñu def kon nag Tapha ñu ànd ak yow nga wan ñu li nga xam rek moom moo di euh, Marley ak Boy Dàngu mi nga xam ne nag dimanche bi di ñëw suba moo dox ci seen diggante pour ñu bëri am naa huit huit victoire trois défaites oui 2010 saison saison 2010 fin saison bi laa dugg ci quoi laa dugg ci saison bi. maa ngi am âge vingt trois ans ren la suma quatrième année ma am treize douze combats neuf victoires ak trois défaites. xam naa ko bu baax xam naa ay qualité xam naa lim mën ak lu mu mënewul daal parce que dañuy seetaan ay lambam bu baax. ñu ngi seetaan ay kasetam xam nañ lu mu mënee ak lu mu mënewul daal. waaw seetaan naa ay combat am parce que aussi jot na bëree suma benn grand bu ñuy wax doomu jalaaw yàlla may ko si ndam doomu jalaaw bon donc xam nañ maar la bu baax parce que bon seetaan nañ ko bu baax xam nañ li mu mën a ak li mu tële te ñu ngi si bu baax pour yàlla may ñu ndam. moom bërëm daal tax rek la lépp lu muy bëree tax tax rek lay bëree bu ko weesoo moom amul leneen. waaw li mu mëne gars yëpp seetaan nañ ko xam nañ li mu mëne moom lépp lu mu bëgg rek ñu fekk kasi. mënuma ëpp doole sax man xale bu ndaw laa di liggéey te incha allahu rabi le huit la ñuy xam daal bu neexee yàlla waaw beneen marle bu bees tax mooy ñëwaat. waaw loolu yëpp loolu yëpp dina leer moom ëpp doole moom ma gën a gaaw loolu dina leer mais dama koy xamoon leen daal combat bi lu mu ko bëgg bëgg maa ko gën a bëgg parce xam naa man combat bi lu ma jaral. te Marley man dama warul daanu daal waruma daanu xam naa loolu bu baax parce que liy topp sama ginnaaw dafa bari lool lool te Tëngéej dañ ma yaakaar. la jaaree dem xool ñi nga xam ne nag moo di euh, ñoo di Leewtoo Leewtoo tey dañ ci am gan goo xam ne moo di François Manga daal ngeen ko gis ci suñuy antenne ah, muy taxaw nag di euh, wax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñi nga xam ne du ñuy faral di dégg wala nag euh, du ñuy faral di comprendre ñun li ñuy wax comme nag lañu nekk ci semaine boo xam ne handicapé yi lañ ko jagleel mm. tey jii dañu jël kenn ci ñoom koo xam ne dafa maanaam dafa lëkkaloo ak ñoom lu bëree bëri parce que xëy na moom moo leen di expliquer après ñun li ñuy wax pour ñu mën a comprendre mais pourquoi pas ci ñoom ñu am ci ay nañ ko déglu moom François Manga. man la François Manga. tey euh, dama bëgg ñu waxtaan ci wàllum euh, muuma yi parce que ci côté boobu laa yëngu. lu waral nga tànn métier bi. métier boobu lan moo tax ma tàmm ko. Euh, c'est parce que li métier la boo xam ne dama ko bëgg d'abord ma bëgg aussi Euh, mu may ba pare euh, pour man mission la mission la boo xam ne yàlla mu ma ko dénk euh, gannaaw am na ay nopp pour dégg am loxo pour def signe yi am sama gémmiñ pour wax yaakaar naa ni yàlla daf ma ko jox pour jàppali suñu mbokk yi nga xam ne ñoom du ñu dégg ñaata nit lañu xayma ci Sénégal ñuy dund ak jafe-jafe bii. fii Sénégal pour ñu xam nombre bi jafe na waaye nag euh, dafa am ay xayma dafa am ay euh, xayma yu bëri. dañuy ne fii au Sénégal am na mille quatre cent ñeneen dañuy naan neuf neuf la amuñu chiffre exact. lan mooy jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel. lu ñu gën a métitlu dafa bari parce que déjà Mati nit koo xam ne day xalaat day am ay sentiment mu bëgg ko exprimer du mën bu ko exprimer yow doo doo xam lan la bëgg a wax yow tamit boo waxee moom du du xam yow lan nga bëgg a wax métti na lool looloo tax euh, ñu am ay frustration refoulement boobu day tax ah nit ñi bu leen bu ñu leen xoolee ñu defee ne mu may dañoo soxor parce que loolu daf la ne énervé bëgg nañu euh, kontaan di reetaan ak nit ñi mais nit ñi duñ leen comprendre. ndax ak métier bi faj say soxla dina yomb. maa ngi ciy dund mais en réalité. Euh, euh, dans ce si ci réew mi donc euh, ñu bëri xamuñu jëriñ langage des signes xamuñu ko nit ñi comprenez wuñu parce que su ma duggee ci oto par exemple ma fekk foofu muuma su ma commencé waxtaan ak moom dañuy naa waaw kii xanaa muuma la ñeneen ñi dañuy reetaan am na ñoo xam ne dangay ngay dëgg ñi naan ndeysaan kii fan la jàngee langage bi vraiment. lii moom dafa yéeme ñi nga xam ne ñoom dañoo comprendre xam nañu njëriñ communication ñooñu boo liggéey ak ñoom dañu lay jox loo xam ne vraiment sa liggéey laaj na ko mais am na ñoo xam ne bu ñu la jëlee déjà dañ ko jàpp dañ ko jàppee leneen donc doo am euh, loo xam ne loolu arrangé na la yan kàddu ngay yëkkati jëmale ko ci kilifa yi ngir ñiy bëgg a nekk mbër te di dund ak laago bi mën ko nekk. man li ma bëgg a wax autorité yi pour ñu def tout ndax fii am na ay muuma yoo xam ne dañoo am doole mën nañu bëre mais kenn accepté wu leen ci lamb ji te pourtant mën nañu bëre parce que gis naa ay muuma yoo xam ne. am nañu ceinture noire karaté am na ñu ceinture noire judo am na ñu nañu ceinture noire pour pourquoi du ñu mën a bëre. jaajëfal ko bu baax a baax sargal ko sargal képp koo xam ne da nga bokk ci famille am waaye nag sargal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan ci loolu nga xam ne moo di Leewtoo ak képp koo xam ne da gis na ci sa bopp. ancien gloire tey nga ñu indil. tey nag bu doon sama sago ma am euh, euh, Mamadou Sakho ñëpp gën ko xam ko tudd Double Less di fàttali aussi mbokk mbokku euh, Sénégal ne Double Less mi ñëw Sénégal fii. Mhm. ñu ngi koy woowee Njool Màkk. ndax guddaay bu mu guddoon rek ñu koy woowee Njool Màkk. Hmm. dañ meen di Double Less naa ci mën a wax loo xamante ne lu ma mën a wax ci Double Less lu ma mën a wax ci mbéy mi ma bokkal ndey baay rek. mais ima image yaa ngi nii Double Less lan.

keneen ku Falla Balla gën a nuyoo gën a nuyool yàlla ko yàlla yërëm mooy Pape Baldé nekk seen mag ñoom ñëpp daan bëri ñoo bokk génération kooku nag moom dafa mel da ngaa tegg boobu Falla Baldé rek mhm. teg ko ne jël pop jël pop mu teg ko fa mooy Pape Baldé Pape Baldé yàlla ko yàlla yërëm Falla gën a nuyool ci doom yi lan nga ñuy wax ci li nga xam ne jot nga ko fekkee wala nag li nga xam ne dund nga ko ak Double Less ci làmb Double Less déjà dafa bokk sama maître yi parce que ñun ñaar dañu bokk nekk équipe nationale mhm. ñoom ñuy jeexal di génn mhm. ñun ñuy ñëw ñi nekkoon ci ay vingt et un ans dix neuf ans euh, âge yu mel noonu. mais dégg naa jaar na écurie Fass su ma juumulee. bon en fait jaarul écurie Fass proprement di nekk ci écurie mais ñëw na dal Fass Fass ay mbër rek fa nekkoon maam góor gi Ndiaye faga 2 faga 1. plein de lutteurs yoo xam ne ñoom Papa bu ci Papa Kan Ndoob ah, ñoom Papa Touré ñoom Mbaye Ciss ñoom la fa ñoo la fa ay jamono. ñëw nag ñi daan entraîné suñu buntu kër fañ daan bëree muy doog a dëkk ba nag bari doole trop macha alla boo xoolee photo bii. mu sol daak sol daalaam ànd ak ay mbokk joolaam ak ay sooseem yore boobu bu ñu daan dem di bëri du bes bu daan jógee Fass wala luy quarantaine di dem stade Demba Diop niimaa bu am ci mbedd Fass lañ koy dagg moom la daan yor ñu ngi daan départ ñoom deux heures heure bi nit ñi añ lañ daan départ dox jëm làmb ja waaye nag dégg naa coow lu rëy amoon na fi keroog ba mu dëkkee Mbaye Guèye dafa jaadu woon xam nga lu tax lu tax dafa ñëw di bëre di ànd ak soose ak joolaay Mbaye Guèye bien vrai que moom amitié bu dox seen diggante ñuy fréquentante di àndante di entraîné loog yëpp waaye ba ba bëri jotee nag dafa am ku ko conseillé ni ko ma yow kii nga am dem langal langa bi ngay langal moom ni bariwul njariñ ci yow mooy li mbër yi def léegi rek ku ne bëgg a parparloo waaw demal nga dëkk ko bëri moom ndax boo ko daanee tey jii la sa tur di bindu mu koy taal mbéy ngay loxo mais c'est de bon conseil mais oui lan la wàññi après bëgg nañ seen carrière bëgg nañ ñaari yoon seen benn bi Double Less daan ko bi ki topp ñu naan moom la laaj Mansour Mbaye naan bëri bi la ñu xaar ba léegi ñëwagul. parce que boobu léegi arbitre bi joxewul chute. mais terewul ñoom ñaar ñu ko seen seen amitié ba fi mu ñoom ñaar fu ñu gisante dañu ko tante di ànd. kon da nga bëgg a wax amitié da nga bëgg a wax amitié bi dox ci diggante Balla Gaye ak Lac de <laughs> lamb doxul loolu. du ma ko yemal rek ci Balla Gaye Lac de. ak kat ak beaucoup les lutteurs sérieux daaw ñu bëre. mais léegi tournoi <laughs> et jamono doxoon na aussi ba Mohamed Diallo Bel Diouf bëri Moussa jàmme ci ay jamono. Ah. te ñaari séeréer lañu ñoom ñaar ñaari séeréer njëkk bëri ci àdduna. karam nu séeréer yi def. dafa méttoon trop jaxasoo ñu bëri combat bu yàgg nañu machine ci la musa Diame loxo ma damoon ndeysaan nag. nee nañ ma musa Gueye sax bëri ne maanaam lu gën a jege rek laa lay woon ci diggante euh, Lac ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye bëri nga ba bëri ak ki nga xam ne moo di seen nijaay Serigne Ndiaye bëri nag Serigne exactement Serigne Ndiaye nijaay la ci bokk tunu làmbaay. ba mu soxlaa bëri pare moo nekk sa entraîneur dëkk ma. Ah. xam lu ne bu ah. dëkk yi. Ah. damaa wéq ndënd ba ndënd ba a bëri bëri nañu mais après bokk même équipe bi. waaw waaw ñu géré. na sa entraîneur en même temps. Mm. a garaawati. bëri naa ko muy Papa Gueye ma nga Italie mooy tëdd noonu seen par parloo yee du bu soose laa joolaa laa séeréer laa amul benn importance ni ki sax ngay bokk mu écurie ngeen di liggéey ñaar bokk leen écurie tant que pour man tant que bokk leen écurie rek bokk leen intérêt yi ngeen défendre. dëgg la maa ngi écurie Fass. Mhm. Euh, bëri ma écurie Fass génn naa écurie Fass. Mhm. dem naa écurie Waagu Ñaay. Mhm. damay dem seeti mbër ba dàq bëri Fass ma dëkk ko bëri ak moom loolu mooy logique sport. <laughs> dañuy perdre suñu temps perdre suñu bopp ci parparloo yi amul benn njëriñ. dëgg la ñàkk xaalis bu bëree bëri. Oh. ci loolu rek la ñuy demee ci li nga xam ne moo di allo docteur xool nag docteur bi tey ji lan lañu indil indil ko ñi nga xam ne ñoo di mbër yi nga xam ne dañuy soxla bu baax a baax conseil allo docteur Bonjour Euh, je m'appelle Catherine Solano et je suis très contente d'être avec vous. Euh, je suis médecin sexologue et je travaille pour RFI avec Claire Edon dans une émission qui s'appelle Priorité Santé. Donc je vais vous parler de, des relations entre le sport et la sexualité. Alors déjà, il faut savoir que le sport, c'est excellent pour la sexualité. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on sait que les hommes qui font du sport régulièrement, disons trois fois par semaine, ont deux fois moins de problèmes d'érection au fil des années que les hommes qui ne font pas du tout de sport et qui sont très sédentaires. Donc, c'est bien de faire du sport pour sa sexualité. Et c'est pareil pour les femmes. Bien que ça se voit moins, une meilleure Bien sûr, quand on est jeune, ça se sent pas beaucoup, mais au fil des années, ça fait la différence entre les sportifs et les non-sportifs. jaajëfal ko sunu bu baax a baax ñaanal ko nag weekendu jàmm ak salaam Moustapha ci loolu la ñuy jaaree nag dem xool tey jii lan la ñu jox ci li nga xam ne moom moo di sunu zapping. Bongari numéro 2 booy sëy numéro 2 booy Ipo moo jël tànk ba noonu Bongari numéro 2 jël na tànk ba jël na tànk ba gis nga wañ na ko booy sëy 2 bañ na Bongari ak tànk ba Bongari numéro 2 jël na tànk ba ah ndeysaan ndeysaan daan mbër daanu xaj na na position boo xam ne bu la ko téye boo jëkk dee rek doo ci génn ba bëre bi jeex. moom jàng bëre baax. non da ngay jël temps bëri dafa am temps. mbër day xam fu mu war a dóoree. waaw ubbil nga waaj tur boo xam ne moom la doon wër ci làmb ji nga jox kooku dès le début da nga koy arrangé du la bàyyi dina ko tàggaloo ak yow. wala waajib ni ko booleel xale ba ngay fecc mu ba muy daje ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye fii ma taxaw fi la booy bambara jaar kere ba muy daje ak tubaabu joor fii ma taxaw fi la jëri biraama coor jaar kere ba muy daje ak tubaabu joor waaye fi ma taxaw nag fi la ki nga xam ne mooy Assane Baye Fall daje ak ki nga xam ni mooy Jibril Wade. ji. si mel ni Dieye production xale lañu dugg nañ ci làmb ji PABC Events ñoom Prince ay ndaw lañu mën nañu wax ni Max actuellement. nekk euh, dañu bëgg organiser mais amaguñu mooy ñu ngi hésité ba léegi te ñu tëgg seen combat aussi dañu tëgg am gisaguñu sponsor yi pour mun leen accompagner ñu ngi si lijjante yooyu je pense que bu ñu ñëwee sponsor yi bu ñu signalé euh, lamb ji dina ubbeekuwaat dina ñu à de très grands combats. waaye saison bi liñ ci gën a mooy ñàkk yow nga am chance am combat nga war a daje ak le phénomène de Lansar muy Siteu d'abord jafe-jafe yi ñu nemmeeku mu xaw a dëgër promoteur yi naka nga ko dundee yow par rapport ak sa yeneen collègues yi nga xamante ne ñu ngi ci écurie bi sàkku xam-xam. travail la boo xamante ni yàgg naa ci yàgg naa ci liggéey daal donc de et euh, suñu cosaan la quoi làmb donc waratul nekk rek ne dafa war a yem ci euh, dem nañ làmb ja diw daan na pare nañ ci et puis départ nañ affaire yi parce que il faut que ñu koy valoriser quoi li tax ma gën ko ma gën gën si liggéey parce que bi mooy deuxième fois bi parce que première fois bi. yem ci ni mbëri kese ñoom ñoo ko war a emporter quoi ñu it suñu comme liñ ci mën a defar suñu tuus bi ñu def mooy suñu photographie wàllu photographie donc il faut que ñu jéem si def dara tamit pour génne ko. jëfal leen bu baax a baax loolu nag lañ ñu indiloon tey jii ci li nga xam ne moo di sunu zapping laataa ñoo dem ci may ak nga xam ne moom moo di sunu xarit euh, per bu xar dañuy ànd ak Iba Kane jaajëfal ko nag ci ànd bi mu ànd ak waa léegi ci ak ñi nga xam ne ñoo di waa sunu lamb ñëw ak ci li nga xam ne moo di statistique tey nag ñu jël kenn koo xam ne nag moom mooy euh, Elton Elton nekk doomu Géejawaay Elton dañuy àndal tey ci statistique asalaamaaleykum mbokku téléspectateur TFM ak soppay Œil e du Tigre man Iba Kane bu sunu làmb maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique tey si mbër mi nga xam ne mu ngi tudd Elton nekk école de lutte Balla Gaye Elton nag ñu ngi koy woowee le bulldozer de de école de lutte Balla Gaye pourquoi bulldozer parce que Elton mbër la moo xam ne il pèse plus de cent trente kilos ba pare il pèse il mesure un mètre euh, quatre vingt dix donc mbër la moo xam ne depuis bu mu duggee si arène bi depuis en 2006 def na si ay jaloore. amul tey koo xam ne mun na bañ Elton ci biir làmb Elton dafa def ay preuve am Elton wane na ay preuve am parce que boo xool si palmarès am boo xool 18 combats yu mu disputé si am na si 13 victoires pour 5 défaites. ñan la Elton daan si carrière Elton ki mu njëkk daan moom mooy malien mu ngi ko daan le 12 mars 2006 bu mu paree si malien dafa jël ngunda daan ko le 22 juillet donc boobu tamit mu ñëwaat euh, jël góor gi Senghor góor gi Senghor mu ngi ko daan le 14 janvier 2007 bu mu paree si góor gi Senghor si la jël Youssou Ndour bu école de lutte Ndakaaru daan ko le 29 avril 2007 après après Youssou Ndour si la jëlee Ndiaga Sarr Ndiaga Sarr mu daan ko le 14 décembre 2008 mu pare si Ndiaga Sarr jël Siré Saras daan ko le 8 février 2009 ensuite si la jëlee Bismi Ndoye seen première confrontation mu daan ko le 1er après si la jëlee Matar Gueye daan ko le 24 juin bu mu paree si Youssou la jëlaat beneen mbër mu nga xam ne écurie Ndakaaru la nekkoon jamono yooyu muy Yékini Junior te léegi mu nekk Dóor daan ko le 5 après euh, Yékini Junior ci la jëlee Boy Naar daan ko le 5 décembre 2009 bu mu paree si Boy Naar si la jëlee si lay dob le 2 mai 2010 daan ko mu nekk douzième victoire am treizième victoire am nag mu ngi ko amee si Bismi Ndoye fan la ko amee mu ngi ko amee Bercy kañ la woon le 8 juin 2013 donc yooyu mooy treize victoires yi nga xam ne Elton le bulldozer de l' de lutte Balla Gaye am na ko mais Elton tamit am na ay ay ay ay défaites yi xaw na bari booy xool parce que défaites yi cinq défaites la défaites yi kat moo ko daan Bismi moo ko daan le 7 17 avril 2006 bu mu paree si Bismi si la ko daan ko combat boobu mu ngi woon mu ngi amee woon stade Assane Diouf combat boo xam ne bu bu ñu bëri woon si lëndëm combat bu bëri woon coow ñi ne Elton daan ñi ne Tonnerre daan mais arbitre yi euh, Tonnerre la ñu joxoon victoire le 5 novembre 2006. ensuite Nes tamit jël na Tonnerre euh, Elton daan ko le 27 juillet 2008 ensuite Tafatine daan na ko le 30 juillet 2011. Pakala moom mu mujjee daan euh, Elton mu ngi ko daan le 1er mai 2013 donc lii mooy statistique Euh, Elton bi nekk école de lutte Balla Gaye pour cinq défaites maa ngi leen di jox rendez-vous vendredi prochain ci beneen mbër bu soobee yàlla. kon nag euh, demoon nañ ci ko nga xam ne moo di Elton tey nag moom la indiloon statistique am euh, àndoon ci ak ki nga xam ne moo di Iba Kane mais Elton palmarès bu riche la yor. oui Maty Elton palmarès bu riche la yor bu commencé ba certain moment nag. mu perdre un combat contre Tapha Tine perdre combat. bu métti contre Pakala bu métti woon. et yi mu perte combat yi nag moo tax mu sombre ba nëgën nit ñi nag léegi booy xoolaat sax Elton adversaire da koy jafe kan mooy bëri Elton la ñuy di. posé mais gars yi gisoo ni dañ ko xaw a ragal. dañ ko ragal ou pas mais xam nga tamit euh, gars yi bu ñu dee bëri dañuy taamu di bëri mbër mi nga xamante ne soit dafa daanu benn yoon wala dafa am euh, benn. Euh, Euh, défaite ñu réparé waat. mais tamit dafa xaw a bëri défaite parce que nag nees daan na ko tonnerre daan na ko Tapha Tine soog a ñëw li nga xam ni euh, arbitre ko àtte ci nag dóor yu métti yooyu nga xam ne nag loxoon na ci digganteem ak moom. ah c'était un ah, combat très dur ah, ñëw daan ko aussi jubbantiku na sax hmm? gaa bi mu demee. Euh, Paris Paris Bercy ci hmm, hmm. kanamu ak bis bis mi ndooy waaw dafa foog moom presque cof rek mu dóor ko mu daanu. mais dafa des que ne làmb mati dafa nekk loo xamante ne combat yi nga war a gagné boo ko pertee rek. te ba léegi ma li waaw dafay ma jaaxal mooy euh, dafa mel ni ni koo xam dafa desee mën a imposer parce que day daan beneen bi ñëw nga am histoire ci moom mu daanu ñëwaat xam nga nga a génne kii mu daan daan man dafa dafay varier victoire ak défaite. moom la gars yi di wax benn carrière en dents de scie. Mhm. Mhm. la may fàttali daan juróomi yoon nga ñëwaat. exactement mais ne ni ma ko gisee nii. ak mhm. dernier combat bu mu jëbalee. à Bercy je waat na parce que lamb aussi quoi que bis mati da ngay xëy rek nekk champion na bërëg nekk champion continuer ko ou ngay daanu di daan ba bis ngay toog nag kenn la daanati. Mhm. je pense que ne euh, euh, Elton ci boobu carrière la boobu lancé nekk mi ngi daan ñu koy daan mais je pense que ne bu xasee jubbantiku tey jii ba am benn victoire ñaari victoire bëgg koo daan ci làmb gi dina jafe trop encore une fois. doy na waar digganteem ak assurance loo ci gis kan mooy assuré foofu Elton mooy joxe essence wala <laughs> assurance mooy assuré foofu. ne kii assuré morom rek ki joxe essence ah, ñu ne la boobu ah? laaj yow naka nga ko gisee. ñaar ñaari mbër euh, la. combat bu am importance en tant que ah. consultant ndax war naa mën a ne. ba si parce que booy xool assurance aussi bëri bëri na sopp na boo gisee aussi tous les grands champions yi ci lamb ji fi ne nii assurance dafa amoon problème am combat moom tamit dafa jóge bi Elton daanee ki nga xam ne mooy Bismi Ndoye ci la assurance daanu moom tamit ci digganteem ak super étoile. ñoom ñaar bu ñu leen boolee te muy combat tamit combat bu neex lay doon parce que kii bërekat la mais Elton nag dafa naqare yëngal xaaral ñëw léemaatoo ci doole nag. ci loolu nag la ñuy tarxiisee jàll ci li nga xam ne moo di maye diggoon naa leen ko ne woon naa leen après doyen ki nga xam ne moo di père bu xaar booy euh, jàll ndax nag ñoom ñaar seen diggante altine la ak talaata. Mhm. kon ñu jàll ci ki nga xam ne moo di père bu xaar xool lan la ñu indi tey ci may dellusiwaat ak yéen préman ni moori lan koy wax borom ko ko yaag kuy ne ca daw mi kookoy suutub ko dóob cëri may sa biram ko dog maam jaaga may saak jor i borom saako xaalis leen wax de angaari jonga may mbalka fondee montagne ci ree géej ñi robinet lem yi xam nga den ne nag làmb waaye bu ñu nee làmbit nag am na yeneen yoo xam ne bii na boo xoolee làmb la sax te nekk na ca gannaaw làmb waaye boo ko jéqe ba ba ni ko ceex teg indi ko ci sawet ne fépp ak moom kooku da ngay jàpp sax ne làmb na fekk na sax du làmb waaye fekk na tamit bokk na ca biir làmb ne boo ko boolee ca biir làmbit mu jox la làmb <laughs> yaayoo <laughs> Eh, Moustapha xam nga waa ji daa bëri tiitara bëri tiitara bëri tiitara bëri tiitara bëri tiitara ba romb tiitara daan na tegg nag te ab maçon la daa nekk nag lu ma douzième étage bi mu nekkee douzième étage nag daan ne fa tekk daal di taxaw ñu tegal ko ay safo xam nga safo safalan ko tegal mooy dénki maçon bi taxaw bu nee ci tekk taxaw day jël gamaat bi teg ci wetam daal di ngam bu turéel beeg peel bi teg ci wetam daal di jël nag li ñuy maasale daal di teg bi mu nee ciix nag daal di dóor benn turéel newaat ciix dóoraatub turéel newaat ciix dóoraatub turéel muy ñeenti turéel mu daal di raax maasale diw diw diw jël karona ci teg di jël ciment di cukk ci digg bi daal di cukk-cukkal bi muy cukk-cukkal bay gestu nag bay sëkkat <laughs> <laughs> ñaari disket yoo xamante bii ne xale yu jigéen yi ñu ngi la ko yoral façon doxin woo xam ne noo comme fasi naari góor yu ndaw yu tuuti solal la ko sol goo xam ne nag di cakki-cakki ñu ngi biic nag ndànk-ndànk naan ci par ci par ci par ci par di biicar biicar ci kar ci kasel la ko nag kaw ba suuf maçon bi tollu douzième nag étage daan na tekk nag di xool jigéen ñi ca suuf yow nan ngay liggéey nekk douzième étage lalub safo toog ci gamaat ba dénk yëpp baaxunu saf nab ciment nga ngay xool si suuf

sama ami ma gaañu woo sama càmmiñ san iwee gaañu ne way way sama càmmiñ yow di ko dib dibal sama càmmiñ yow sama ndey ki gaañu ne yow faatu noonu ak mu ñàkk sama ndey gaañu bi lay gaañu noonu ak mu ñàkk sama ndey non ki ki woo nañ woo ambulance bi lay nañ ma sister non dañ ko kon gaañu woo mu ne non gaañu ma lii tàmm naa ko lii sama liggéey la jigéen ñi dañoo def même pas un mètre cent waaye ne der ndekete mbàq gaa toj bu yàgg <laughs> jaajëfal ko bu baax a baax per bu xar tey nag loolu la ñu <laughs> indiloon ci ci may ah yeneen comédiens yi nag daañu leen seeti na parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk il faut nga génne li nga am ah. per bu xar nag kenn du moom non per kenn du moom. per bu waxumala sax ay ay ay may yi mais. <laughs> schéma yi mu dugal Sénégal. waaw surtout li mu def récemment Bercy impressionné na ñëpp. non beneen affaire la. vraiment ah. merci encore une fois Père Boukhara. waaw sama mbokk Kajoor Kajoor la ndax nag ñoo bokk suñu kebe bi maa ngi koy bëggee baax a baax di ko ñaanal moom itam tam end wu neex ñu jàll ci li nga xam ne moo di revue de presse dellu si ak yéen. ngeen jëf ñu ci yéenekaay yi li ñu xëy bind tey ci wàllu nag làmb dañuy ñëw ak ci li nga xam ne moo di observateur observateur mu ngi ñuy xamal tey jii ki mu dajeel moo di troisième tigre de Fass Bordeaux Gris Bordeaux mu ngay wax ci observateur ne moom du may benn yoon dara ci combat bi nga xam ne moo dox ci digganteem ak Tyson ne na nag lam daan wax rek la Moustapha daan wax la koy wax j'attaque je cogne et je gagne loolu nag daan ci xam Moustapha Gueye ak Tyson bi yoon nag moom mooy taxaw taxawaayu tigre moom nag moo war a jàkkaarloo ak nga xam ne moo di doomu Kaolack ndàngaan bi moom ba tey mu ngi wax ne ah mooy décider li nga xam ne moo di adversaire am waaye nag bu yoon jeexul waax sul di jeex diggante combat ki nga xam ne rek ba tey ci observateur moo di Rocky Balboa ak kooku di Balla Gaye nee na pourquoi pas mu bañ a am dafa war a am lu war a am la moom Gris ba tey ñu ñëw yéen ci yéene kaay bi di laas nee amul benn doute ci jële victoire ci li nga xam digganteem ak ñi nga xam ne moo di Tyson bu ñu jógee ci laas dañuy ñëw ci li nga xam ne moo di sunu làmb sunu làmb nag ñu ngi ñëw di ñu xamal ci moom di Ablaye jii ci ngoon mooy seen jàkkaarloo ñoom ñaar bu njëkk laataa nag ñoo jàkkaarloo ci la nga xam ne moo di arène ba ñu ñëw ci waa sport waa sport nag ñoo ngi xamal ni ba tey Gris Bordeaux mooy wax foofu foofule foofu nag la fa Gris Bordeaux wax mooy Tyson nekkul benn yoon néew buy dox ci biir làmb ji maanaam Tyson n'est pas un cadavre ambulant waaye moom ki nga xam ne nag moom moo di Gris doo ci kàddoom nag ki nga xam ne dénk na ko ñi nga xam ne moo di tout sport mu ngi naan man Gris doo changé naa j'ai changé loolu rek la wax point final la mu changé nag wala la tax mu changé nag moom rek moo ko xam waaye ni ñu ñëwaat ci yéen ak ki nga xam ne moo di sunu làmb sunu làmb nag mu ngi ñuy xamal yooyu ñu le léegi euh, waa orange dañu nag tourné euh, doo wala nag dañu wan ginnaaw képp kuy wala nag képp koo xam ne da nga yëngatu ci wàllu làmb duñu jeexal li ci yéen kaay nag te jaalewu ñu képp koo xam ne rek danga nga bokkoon ci njabootu Nelson Mandela mu mel ni nag njabootu làmb yëpp rawatina waa équipe bu L'Oeil du Tigre ñoo ngi jaale bu baax a baax waa Afrique du Sud ndax ñoom itam dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci L'Oeil du kon nag Mandela wala Madiba yàlla na suuf woyof ci sa kaw jaa ngeen jëf. jaajëfal leen amoon mbégte nag àndoon ak yéen depuis nag euh, waxtu wi nga xam ne ànd nañ koog yéen ba waxtu wi nga xam ne ci la ñuy tàggoog yéen. Mm. tonton Moustapha wala nag Moustapha émission bi jeex na. Euh, émission bi jeex na ma ci kontaan trop euh, di wax ne li nga sol rafet na trop macha allah. waaw tey nag Bour Sine Coumba Ndofféne moo fi jaar ah surtout Samba Khary Cissé bi nekk fii ci diwaanu Médina. moo jaar ci yii ah ak nag papalaay papalaay toujours xam nga moom ndeysaan dafa bëgg lait du tigre. Mm. ah xam nga cheveux naturel dafa cher. ah, ah mooy jaar ci cheveux yu baax yii. Euh, ku ne xam ne na or moom boo ko waxee boo ko waxul daal maanaam biisu su moom la jeg ji bëgg. <laughs> Ndiaye et ñoo fi jaar Amadou Ndiaye biisu sëri bu bu kii le moo fi jaar ak nag ñëpp ñi nga xam nag dañuy jàpp ci lait du tigre am na ñoo xam ni maanaam ñëwuñu. waaye ñaan yaa ngi egsi ak li nga xam ne ku ci mel ni suñu xarit Cheikh Ibra Mbacke. Mm, ñu ngi koy ziar di kontaan ci mu bu baax a baax te naan ko Mbacke. xam nañ ni yaa ngi ci jàpp bu baax ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar mhm. ziar sëriñam mhm. ziar soxnaam ak njabootam yëpp moom mhm. sëñ Ibrahima Mbacke dëkk fii ci parce que asri nag doon nag nga xamante ne nag am ko cër bu rëy ci murid bi nag yàlla ko baax mu yaatal nag di jàppale doomu aadama yi c'est hyper important ça ma kon bokk li fi baax yéen la li fi dëng man kese la gàddu naa ko ñi xam ne doomu aadama matul maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu kon nag émission bi jeex nañu sargal bu baax a baax Mouhamadou Lamine mi ma jàkkaar la loon xam ne moo di Papi Ndoye Mali Maram waaye kenn du ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunu ginnaaw nag ba ngeen mën ñoo xool dina kooku nga xam ne moo di Mansour Gueye ak nga xam ne moo di Vieux Diouf duñ fàtte Patrick ak nga xam ne moo di tonton sunu tonton nag kor <laughs> ak ah, ñu ah, sunu sëriñ hmm. ak nga xam ne moom moo di Mbaye Fall mi nga xam ne dafa yeewu loolu li nga xam ne moo di njël sargal na ñëpp di jéggaluwaat ñëpp ñi nga xam ne moo di ah, wax ju dëng ji bu jubee ko tonton Moustapha waxee rek yàlla sunu borom la lay doon doon ci beneen numéro l'Oeil du Tigre jaa ngeen jëf